ab kawteef wala lu motif bu doy waar daal di ti ci benn école bu nekkee fee ci Grand Yoff école privée bi yoon nag nekkul ne élèves yi ñoom ñoo ko def mais ka ko def euh, professeur la mais avant loolu dañ leen waa ku soxla seet sa wàllum yaram wala nga soxla li nga xam ne bii mooy jaar bi am secret wala nga amee ndoxum ti wala nga amee hémorroïde da ngay woo seex Cheikh feex ci 70 733 32 32 monsieur Silva mi nag euh, dan ko mujj a teg loxo ndax la tax mooy euh, da doon jàngal xale yi moom nag euh, mu nga yor matière bi naan PC ak bi nga xam ne bii mooy mat mais ko de monsieur Silva nag bu daa jàngal xale yi dafay disin ay awray góor ak awray jigéen di leen gëmloo ne rapport sexuel daal dafa nekk loo xam ne bii lu baax la ci wér-gi-yaramu nit yëmu ci tamit euh, da doon euh, tapp li nga xam ne bii mooy euh, taati xale yu jigéen yooyu le ak di leen wax waxi saay-saay ñii di seen i parents nag ba yëgee mbir mooma ca lañ ko yóbboo ci yoon ban ko yóbboo ci yoon nag ci la ko police daal di koy jël si ban ko yóbboo nag laaj ko nee na loola noona dafa bëggoon rek pour xale yi mën a yeewu mais yeewoo caay-caay daal loola jaaxal nu ci bari kako def nag ab professeur la buy wuyoo ci monsieur Silva nekk ci benn l'école bu nekkee foofu ca Grand Yoff bu dee élèves yi nag ñoom ñoo daa def ay lomotif nag tey professeur yi daanaka di leen ci pousser pour ñi def yëfi say saay yooyu kon anam njàngale ak yar kan moo koy defati